إلا أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام أكبر الحمد لله الذي خص رمضان بالعفو والغفران فطوبى لمن تلقاه بأحسن قبول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه خير نبي وأجل رسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الحائزين السدد بكمال الدين بكماله الذين كملت منهم العقول أما بعد فيا أيها الناس اشكروا فمن شكر وجد بعد العسر يسرا وتصدقوا فمن تصدق نال فضلا وبرا وأحسنوا للعباد فمن أحسن أعد للمعاد ذخرا وأخلصوا فمن أخلص لله كفر عنه ذنبا ووزرا واذكروا الله فمن ذكره جدد له, جدد له بين ملائكة قدسه قدرا وألزموا التقوى فمن لزمها نال الفوز وال بشرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وأطعموا مما تحبون من الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فإن في قيام الليل رضا, رضا الرحمن ولا سيما في شهركم هذا رمضان وفي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال طلبت خمسا فوجدتها في خمس طلبت الرزق فوجدته, فوجدته في الصلاة وطلبت خيري, خيري الدنيا والآخرة ووجدته في قيام الليل وطلبت رضا الله فوجدته في الصيام طلبت النجاة فوجدتها في الصمت وطلبت الجنة فوجدتها في صلاة الضحى الحمد لله الذي اختار لخلقه أوقاتا فضلها وأياما خصها بالفضل وشرعها وشهورا بسط فيها على المؤمنين موائد الكرم والإنعام وخص رمضان فجعله سيد الشهور ومصباح الأنا ومصباح العام لا إله إلا هو بعث بالأميين رسولا سماه محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين حازوا بقربه مجدا كاملا وسؤددا أما بعد فيا عباد الله اعمروا من شهركم هذا جميع الأوقات بما تيسر من الصلاة والقراءة والذكر وأنواع القربات واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وأكثروا الصلاة والسلام الصوم جنة ما لم يخرقها قيل وبما يخرقها قال بكذب أو غيبة وروي عنه أيضا أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وجاء في حديثه أيضا إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وليكن عليك وقار وسكينه ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء اللهم هب لنا من لدنك الرضا والقبول وبلغنا من عفوك غاية المنى والسول واغفر لنا ولوالدي ولوالدينا ولجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم آمين والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah C3S compagnie Serigne Seck Sénégal gannaaw ba mu leen masawoo ci mbas mi di Covid 19 mu ngi rafetlu taxawaayu njiitu réew mi ak waa kër docteur yi ci wàll wi gannaaw loolu mu ngi leen di xamal ne lu jëm ci concours bi muy amal at mu nekk tudde ko yaatal mbindum alxuraan gannaaw ba mu amalee xaaj bu njëkk bi mu desoon cérémonie bi mu waroon a amal le 10 mai 2020 ca CICES ngir joxe neexalu candidat yi jiitu ci jongante di na boobule cérémonie ngir sàmmonteeg dogalu njiitu li mu sàmmonte tolluwaayu réew mi jury bi dina joxe résultat yi en direct ci télévision yi rajo yi ak réseaux sociaux yi dimanche fukki fan ci weeru mai bu 17h jotee dara soppeekuwul ci neexal yi ki jiitu ci góor ñi dina am 6 de francs CFA ka ca topp 5 millions 500 ñetteel ba 5 bu dee ci jigéen ñi ki jiitu dina am 1 million 500 ka ca topp 1 million ñetteel ba 500 000 francs fukk ak ñeenti candidat yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog 300